senegal salam salaamaaleykum askan wi maa ngi nuyu képp ku ñi sétana di leen wax ne nak tay maa ngi biir pastel fas yéene ci biir rek waxtaan ak askan wi ñu wax lan moy seen xalaat ci combat suba bi euh, ku ci nek am nga mbeur ku ci nek am amna ko faral top ma ñu dem rek. na nga def. maa ngi fi. ba yeg yeg nga am ci combat suba bi. ah na combat bi neex rek. kan nga faral. man balage la faral. lan motax nga faral balage non balage Gaye dafa ma neex sama xol. barke yalla man waa wa ñep ñoo ma neex sudu lamb sudu balage balage mo dama setan lamb yalla na am ndam insha allah ah ndam rek ko faral balla la faral le balage la support rek ah balage nga support lutax nga supporter balage yow ya? dafa ma neex rek no xex rek door mu de de def lepp danugo ah. wa moko mun moko upp ëpp doole combat boobu xana Gris Bordeaux man la faral dama ñaanal ya- dama ñaanal am ndam ah yow yow la moo tax nga faral giri Gris dafa ma neex man wa faas def mané mota ngir ngir kii laa faral bo do Papa taw mota ma faral Gris. xanaa kontaan ci rek bo do ak kan ñoy bo rek Balla ak Balla ma ngi ci Balla rek. ay ah, yang ci Balla mais lutax nga faral Balla ah Balla Gaye daf maa neex yoy tam daf ma yag neex. wa ah. wa amna ci yeg yeg bu mag parce que man Balla moy sama beur ah pourquoi nga faral Balla Casamance la dekk Casamance la wa combat bi da xana di ñaanal suñu mbeur Balla 2 Balla rek lañuy supporter. bañ koy supporté mooy ba muy bëreek Saalum Saalum ba léegi ñu ngi koy supporté ñu ngi koy ñaanal yàlla may ko ndam mu daan Gris Bordeaux jël bu set wecc dellusiwaat si làmb ji ndax Balla Gaye daa bokk si làmb parce que nu làmb yëpp dañoo bëgg Balla Gaye daan ndax dellusiwaat ndax Balla Gaye daa bokk si làmb. waa combat suba bi ñu ngi si am lu dul am si contentement parce que combat jànq la te j'espère dina nekk komba bu neex daal. yow kan mooy sa mbër. bon man euh, Modou mooy suma mbër mais combat suba man maa ngi supporté Gris Bordeaux. bu ñu nee combat lépp xañ si. man terminer xex man comme man terminer ci mbapat mais man je pense que ne man ci ci beure lay jexé dal wa man loolu la yak ci beure lay jexé ah combat bi dal ma ngi ñaan dal ñu fekkee ko ak jam ta mu bañam ay ay ay kii daal ay problème ay problème daal wa ok yow kan mooy sa mbër. man Gris Bordeaux. ah pourquoi nga faral Gris yow. ah dara parce que mooy sama mbër rek loolu la rek. Ah. bu mu nekk daal en tout cas daal na daan rek man. Ah. Mhm. ah combat bi moom man fu mu ne nii damaa tiit sax ndax man baala laa faral. ah pourquoi nga faral Balla ah waa Casamance la xam nga ñun waa Casamance rek ñun moom Balla lañu moom. ñoo moom Balla waa Balla lañ faral moom wax dëgg yàlla. combat bi nan nga ko gisee xeex lay doon wala dóor mu daanu. waaye su xeexee Balla Gaye duma ko daanu ko suñu suñu Balla Gaye daal man Balla Gaye moo ko mun daal. Ah. foofu laa la mun a yema rek incha allah te dina am lam dina am ndam. Ah. waaw waaw. Balla mooy sa mbër. waaw waaw mooy sama mbër. bu xeexee mu daan ko bu bëree mu daan ko. Balla Gaye si gome bu gomee boppam taaw. Ah. Gris Bordeaux da koy yéen ba si kaw daan ko si suuf incha allah. lu ñëw rek ma gobe moom instant moom amul may wax waaye lu ma mën a wax moom sama mbër bi moom am na fit moom fit moom na ko te mooy attaqué. Ah. waaw. lan ngay wax Balla Gaye. ñu fañee Balla la bett Casamance ku kontaan ah loolu mooy lan. mooy bëgg naa Balla Gaye mu daan waa Casamance yëpp kontaan ci. Balla bu ko tegee si yoon moo mun Gris Bordeaux bu dee technique moom moo ko ëpp moo ko dàq palmarès xam nga mais daal na def attention rek. na def ndànk bu ko tegee si yoon moom incha allah yàlla dinañu may ndax bu neexee yàlla. ah xeex lay man de ah xeex laa ko jàppee de ndax ak Balla rek ah Balla day xeex de. Balla moom maa ngi koy ñaanal euh, bu ñëwee si làmb ji daal na tey bu mu dem ak xol mais na dem ak xelam na bëre comme ni mu doon bëree bëreeg xelam mu bëre bu baax xeex. ñibbisi wala bëre bi lu mu la laaj daal mu jox ko ko waaw mu daan ñibbisi voilà mbokk yi nag tey lii lañ leen indiloon ku ci nekk wax nga sa xalaat ñi ne nañ Balla mooy daan ñi ne nañ Gris mooy daan waaye yàggatul suba ak jàmm incha allah dina lépp dina leer stade bu yàlla ñu ngi leen di jox dig daje suba incha allah jërë ngeen jëf